réseau bi nga xamante ni bii lépp luy suqalim immigré yi ak seen aw nekkin mën a mucc ayib loola taxawem waaye tamit euh, mouvement ànd ci dëgg nga taxawal ko di yëngu tamit ngir euh, jàppale askan wi euh, d'abord honorable député bu nu songee suñu waxtaan ak natt réewum Sénégal tolluwaay bi fi toll nii daanaka président Macky Sall juróomi at mi ci bopp réewum Sénégal nga doon député ànd ak moom ci benn bokk yaakaar te boo doon defum natt tey ci yow mi dem ci askan wi di xam sa mbokki soxna yi immigré yi manière générale mboolem sénégalais yi boo defoon natt tey ci liggéey président Macky Sall côté social loo ñuy wax. Euh, maa ngi rafetlu liggéeyam ndax ñu ñu nekk assemblée xëy na li ñuy gis ci ay projet ñu nekk si biti duñ ko gis te wax dëgg yàlla projet yi bëri nañ ndax bu ñu xoolee ci wàllu infrastructure. li ñu def ci ay tali bëri na bu ñu xoolee ci wàllu électricité li mu def ci électricité bëri na bu ñu xoolee ci ndox mi itam ni robinet yi daan coupé ci gox bi ma dëkk man ndax ku nekk fa nga dëkk nga mën a waxal mën naa ne coupure yi léegi presque amatul kon damay évaluer ne ci développement ci lu ëpp daal ah, mu ngi jaar yoon démb nag interpellé naa ministre des finances parce que ne naa leen ci kaw projet yi baax na mais ci suuf base bi sonn nañ parce que man ci banlieue bi laa dëkk. Mm-hmm. te gis naa ne jeunes yi amuñu liggéey bi ñu foog liggéey bi manqué na. Uh-huh. gis naa ne aussi jigéen ñi ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def ay formation man ñi ma xam ak ñi nga xam ne maa ngi leen di jàppale ak ñi may àndal di liggéey. Uh-huh. ñu ngi def ay formation mais peut-être ni ñu war a amee ay financement ñu jàppale leen pour ñu liggéey amuñu ko. kon boo defee formation te amoo ku la jàppale ci financement pour nga liggéey kooku dafay sooxe jeunes yi aussi ñi daan jàng ñu bëri am seeni diplôme liggéeyuñu donc fi ni, ne nii mën naa ne am na aussi lu ma naw ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat. artisanat hmm. bëri formation yi ñuy def diko ko defal xale yu góor parce que nee naa ñëpp mënuñoo nekk fonctionnaire hmm. mais suñu defee formation yu bëri ba pare jàppale leen ci ay outils de travail comme ni ANAMO di def loolu itam rafetlu naa ko peut-être dina wàññi somage bi ndax wàññi chômage boobu mooy tax ba xale yi ñu dugg ci gaal yi. Mhm. di rey seen bopp ci géej gi kon yaakaar nañ ne daal lépp incha allah. Mhm. ci kanam dina jaar yoon. bu mu déggee sax dafa mel honorable da gis ni projet yi bari na. mais réaliser ko sur le terrain moo nekk problème ndax boo tuddee fu mel ni fi nga dëkk muy banlieue bi. Mhm. ak it dëkku kaw yi. ñooñu ñooy suufu Sénégal ñooy la base. Mm-hmm. nga ni ñooñu ñu ngi sonn kon day mel ni wax ji moo gën a bari jëf ji ci régime président Macky Sall wala boog. mu ngi jëf sax xam nga li ñuy wax naan dar mënu mënul xëy sotti ci benn fan. xëy na fu mu fekk dëkk bi la ak fi mu ko bëgg jëmee mu ngi def. parce que boo xoolee réalisation yi bëri nañ mais nag dafa am côté boo xam ne social. xam nga sénégalais bu nekk rek bëgg nga boo xëyee taal sa cin démb dama ko wax ay député di ma tontu ne du dëgg mm. te man li ma sentir ci sama baat di ko dund ak sama population mm. moom laay indi assemblée nationale parce que yaakaar naa loolu moo tax ñu fal député du ma ñëw naan leen dëkk bi nit ñaa ngi suur ni ñaa ngi lekk ba suur nit ñaa ngi lekk ba man di xale yi am nañu liggéey te loolu amul démb bi interpellé naa ministre des finances de l'économie de des finances mm. en ma ne ko liggéey bi baax na projet yi bëri nañ mais base bi ci côté social. san mhm. marche pas parce que léeg-léeg nga gis koo xam ne dangay xëy te doo togg añ ñun am nañ lool ci banlieue bi te daf lay leer na dëgg la. ah li waral loolu peut-être boo demee ci kër goo xam ne kenn liggéeyul kooku pour nga xëy di assurer sa dépense jenn dafay metti mhm. dañuy taaba taaba rek di góor góorgóorlu. te loolu ñun ñu ngi koy dund ak population bi léegi léeg nga xëy gis koo xam ne day ñëw ne la coupé nañ sama courant mm-hmm. mu leer la ne amul lu mu fayee courant mm-hmm. teggi nañ compteur ba yóbbu wala nit ñëw ne coupé nañ sama robinet ñu teggi compteur ba yóbbu te muy ay réalité yu am ci base bi benn député tontu na ma ne ma xanaa yow ci ban Sénégal nga ne te li gën a metti ci assemblée nationale mooy da ngay ñëw indi la nekk sa dëkk wax ko fi beneen député au lieu ñu bàyyi ministre bi tontu mais député ni yow mooy jóg ne la loolu amul Sénégal mel ni ñoom ñoo dëkkul Sénégal mais ku dëkk Sénégal xam nga ne banlieue bi dafa metti mais honorable li ngay wax ni kon loolu euh, c'est un problème au niveau de l'Assemblée nationale donc fekkente ni Assemblée nationale moo war a doon fi askan wi yëge seen bopp mm-hmm. bu kenn ñëwee taxaw bëgg a défendre askan woowu di wax seen jafe-jafe keneen ca péncum ndaw réew ma war a taxaw défendre askan wi moo naan déedéet li ngay wax ni ci askan wi askan ñëpp a suur fekk nam mm-hmm. loolu amul mais li mbaa nekkul ni moo gàllankoor kon sunu doxin ci biir doxalin politique li ñuy ci ay projet réalisation mën ta sotti man yaakaar naa ne loolu am na parce que bu fekkee ne dañuy ñëw assemblée nationale pour naxante. Mm-hmm. yaakaar naa ne dañu war a toog ndax man démb télévision yëpp a ngi fi woon. Mm-hmm. dama jóg ne leen banlieue bi nit ñi sonn nañ am na ñu xiif am na ñu mar dama dem ci benn école di ko visiter xam nga lu ma directrice école bi wax. Mm-hmm. mu ne ma awa man damay jaaxle léegi léeg am na xale yoo xam ne dañuy toog di nelaw. boo leen laajee ñu ne dama xiif kañ ngeen gëj a lekk ñu ne démb ci ngoon. kon loolu réalité mu ñëwati na leen inondation am na côté boo xam ne Golf Sud ndox maa nga fay taa beneen député bu góor jóg ne ma Golf Sud laa dëkk sa pas vrai ma ne ko yow li ngay wax amul bëgg neexal ministre bu fi ñëw. Mhm. bu mu tere nga indi li nga xam ne moom ngay dund sa population. man léeg-léeg damay jaaxle ci assemblée nationale parce que yow la ngay dund ci sa département. Mhm. moom ngay indi député taxaw na la du dëgg te moom mu leer ko ne li ngay wax dëgg la. ban moo ñu jaral ñuy indi loo xam ne du dëgg parce que ñun télévision yaa ngi ñuy tiim di ñu eh, nit ñaa ngi ñuy seetaan. Mm-hmm. kon réalité lañ fa war a indi. boo gisee nag population bi sonn mooy léeg-léeg dañu dul indi dëgg gi ci assemblée nationale dañuy naxaate te boo indiwul dëgg nag du mën a saafarawu. Mm-hmm. parce que li nga xam ne moom la ñu war a wax ñu saafara ko bu dee waxuñ ko fi kon yaakaar naa ne dara du fi saafarawu te fii looloo fii problème. dafa am benn mbir parce que bu fekkente ni dëgg-dëgg nag président Macky Sall rôle assemblée bi règlement bi amul lenn lu soppeeku mooy député bi mooy la représentant du peuple. Mhm. comme ni ngay taxawee naan askan wi sonn nañu. Mhm. mais a président Macky Sall moom mi ngi la ni ay jafe-jafe am ci askan wi moom war a jóg ak ay saafara mbaa taxawul rek diglu ñu naan ko lépp a ngi dox lépp gongo. waaw xam nga président Macky Sall ci nii la ko mën a xamee ñun ñuy député. Mhm. parce que moom kuy déglu député yi la te ku jox ko député yi la. su fekkee ne ñun ñëw nañu wax. moom la ñuy wax dana ko dégg te dana ci tenir en considération mhm. mais nag bu fekkee ne yow da ngay wax beneen député taxaw ne du dëgg mais président Macky Sall ban wax la ciy xam lu dul mu yónnee ci base bi xool lii réalité te yaakaar naa bu ñu yónnee ci base bi danañ xam luy dëgg mhm. ba pare mu am lu ma naqari ci assemblée bi démb coow li nga fi dégg mooy lan da ngay ñëw commission technique indi say doléance mhm. commission technique nekk ñaari commission parce que toujours ñaari ministère ñooy jàllandoo même heure léegi yow boo ñëwee ci ministère bi nga wax toog foofu ba mu jeex parce que ci commission bobu nga bok. xam nga kon do meuna participer ci benen commission. Mhm. commission finance nga xamne ne ñeppay dajé. Mhm. normalement ci commission finance bobu mais war nañ ñu mën a ñu développer li sunu li ñu wara wax. mais da ngay ñëw commission finance président commission bi né trois minutes mais député lan nga mën indi ci trois minutes wax ko ci lo xamne ne at ba at nga koy def muy voter budget trois minutes yooyu bu ñu nee non ku mel ni man trois minutes arrangé wu ma ñu ne kon nañ leen voté bu ñu voté majorité voté bu majorité ba voté ñu ne kon on adapte les trois minutes. Hmm? léegi yow trois minutes lan nga ci mën a wax looloo fi indi coow li démb. muy loo xam ne ñoom mais honorable kon. métti na sunu assemblée bi kon vraiment y' a problème. y' a grand bu mag a bu mag a mag que duñ ñu bàyyi ñu wax li ñu war a wax duñ ñu bàyyi ñu wax développé li ñu war a développé léegi nag nga ñëwaat plénière ñu nee ci trois minutes. mais kon fooy waxee. bu hmm? fekkee yow li ngay jëlee sa base bi mënoo koo wax. Hmm. nit ñi dégg ko président Sall dégg ko président Niass dégg ko fan ngay waxee la nga bëgg wax problème boobu moo tax démb xuloo beeg coow li am. fi loolu lépp loolu moo fi am. à qui la faute kan mooy responsable ci ci loolu. kuy responsable bi mooy rek dañu war a étudier waat li ñuy liggéeyee ci assemblée nationale. ndax président Niass démb dafa mel a tudd Moustapha Niass mais mooy ndey mbiliki. non non Moustapha ko waxee danañu déglu. parce que démb bi coow li jógee man jogna naa ko président commission finance limu wax du noonu. parce que ñun dañuy participer man commission yëpp presque dama ko participer. té commission yi dafa am ño xamné dañuy nekk ci commission bañu bok duñu mëna ñu ci ñaari commission ci même heure té commission technique ñaari commission lañuy ñuy même heure. légui nak yow benn bi ngay bok bu commission finance ñëwé yow ci nga mëna ñëw comme bee rëcc na la nga mëna wax fi commission finance na président bi day gaaw yakamti boo waxee mu ne trois minutes hmm? par force nag man damay jóg na leen trois minutes baaxul ñu ne nañ leen voté député yëpp yëkkati ñu voté trois minutes ñu adopté ko parce que la majorité l'emporte bu ñu jógee foofu nag léegi sa jeex la nga bëgg a wax doo ko wax mais lan liggéey bi man daal liggéeyu assemblée dama cee waaru loolu nag moo fi am moom la ñuy dund première bi nag démb bi wax ji bëree mhm. président Niass dégg na lañ ko wax nee na bu ñu demaatee euh, réunion président mom dina len wax ñu sétat parce que ñom ñoo adopté wu fofu né da ngay wax 3 minutes té do jël deuxième tour de parole. té bo jëlul deuxième tour de parole lég lég ministre bi wax lo xamné yow dula arranger té do mëna tontu. liggéey bi dafa sooxe te dafa dess dafa mel honorable deug deug nak li motax kon Sénégal mënta dox. est-ce que xam nga né député yu bari bëggatu ñu ñëw plénière ak commission. parce que da ngay ñëw duñ la bàyyi nga wax la nga bëgg wax. nga ñëwati plénière ñu ne la 3 minutes nga jóge ba Casamance wala ba Bakel. 3 uh-huh. minutes bu noo ci wax la nga bëgg wax. déedéet déedéet seen xol yi jeex tàkk nag maa la wax lii. mais honorable kon lii moo tax Sénégal bloqué demut. Ah. ndax bu fekkente ni benn ci institution yi gën a mat. taxaw taxawaayu deuxième institution ci biir Sénégal ginnaaw njiitum réew mi moo am bile problème. bu mag kon lii moo tax Sénégal mënut a avancé kon mënut a dox. lii de moo fi ne problème bu mag moo ne assemblée nationale te démb naa ne. journaliste yi toogoon dégg nañu coow li te dégg nañu wax ci ndax xam nga looy wax mu am seede télévision yëpp jël nañu coow li Moustapha Cissé Lo dafa ne am na ministère yoo xam ne dañuy important te ministère yooyu dañuy ñëw nga bëgg développer la nga bëgg wax doo ko mën a wax ñu may la trois minutes looloo indi coow li te muy dëgg te muy dëgg. mais bind nga ci bu rombee wax ji bind nga ci président Moustapha Niass parce que tamit sax booy xool règlement intérieur assemblée buñ ko appliqué dëgg-dëgg yooyu yëpp war na mën a am solution ndax tam bu ñu waxee assemblée pour askan wi ko tax a jóg député bi wax li ci jafe-jafe askanam ngir gouvernement man koy gouvernement mooy ministre bi fi nekkal tey njiitum réew mi mais bu fekkee loolu mënta am kon dëgg-dëgg nag kon Sénégal kon fu mu jëm kenn xamutu ko honorable ah bu ñu defaraatul day kenn xamul fu ñu jëm. vraiment réunion des président ñoom foofu la ñuy tënkee ak ñaari groupe parlementaire yi li ñuy def. Moustapha Niasse nag démb président bi ñu ko waxee ba wax li jóg nee na bu ñu delloo réunion suba dinañu regle problème bi parce que am na nombre d' inscrits yoo xam ne bu ëppee quinze personnes. dañuy def normalement cinq minutes la ñu war a jox. député yi léegi nag ñoom bu ñu amee consensus. ci ne euh, euh, ñi bëgg demander parole bëri nañ léegi-léeg mu dem ay quarante intervenant léegi-léeg mu dem ay cinquante dañuy réduire heure bi mhm. mais loolu yëpp defe naa bu ñu gënee organiser woo par exemple def ñaari ministère par jour démb ban heure lañ fi jóge mhm. naroon nañ fi toog ba minuit parce que ministre ñetti ministère la ñu am mhm. benn ministère bi njëkk waroon commencé neuf heures dafa naaje ba ca topp muy commencé guddi na ba muy pare vingt heures jot na vingt deux heures presque la ñu commencé xaw ma vingt une heures et quelque bi ñu commencé ñu ne bu ñu naree jël débat bi yëpp débat xëy na du ñu mën a teel a ñibbi. kon léegi nañu arrêté débat bi ministre bi tontu ñu par écrit mais jotuñoo wax la ñu bëgg a wax. nga xam ko ministre bi dina ñëw ba dem du xam dëgg-dëgg département lan la war a gérer lan mooy problème askan wi. doy na waa xanaa xëy na danañ ko xam ci commission yi ndax commission technique ña ko fa assisté wax dëgg yàlla liggéeyu commission technique yëpp nañu yoon. commission finance nag ci la ñu doon kii teg plénière bi dafa am solo. xam tax mu am solo mooy da ngay toog askan bi du ñu xam yow lan ngay liggéey. wala ndax yaa ngi leen di wax ak seen yóbbante uh-huh. mais nag bu ñu ñëwee la ñu liggéey fële uh-huh. ñu ngi liggéey bu baax ci commission yi ñu ñëwaat plénière expliquer askan bi danañ ñu déglu danañu seetaan télévision yi te liggéey bi yëf sax génnewuñ ko ndax ñun da ngay xool bu plénière yi passé uh-huh. ay seconde lañ lay teg doo développé mais buñ ñu mayoon loo xam ne ñun kenn ku ci nekk la ngay wax nga génn ko askan bi dégg ko kon nit ñi dinañ xam li député yi di liggéey man li ma jaaxal honorable ci mbirum assemblée ak ay problème am mooy da nga daan gis ni coow buy am diggante ay député day doon diggante opposition pouvoir mhm. mais tey ci seen biir yéen waa majorité mais loolu sax mën na indi blocage ci doxinu réew mi dëgg-dëgg nag bu ngeen amul déggu ci seen biir problème la moom mhm. parce que lu mel ni li koy indi mooy da ngay wax ak nit nit taxaw wax la man toog naa député saaga ma ndey te ah, loolu moo jiitu avant problème yépp di am ci assemblée bi suñu premier premier année première année député saaga na ma ndey. ci assemblée bi mais dama ko ne duma la tontu. fu la saaga ci assemblée bi ci assemblée bi en plénière député yëpp toog ma ne ko nag duma la tontu te booba bu ma ko tontu woon xuloo dana am xeex dana am te bu sama waa déggee loolu mën na doon beneen débat ci biti te bu boobaa day garaaw. mais saaga na ma ndey ma ne ko nag duma la tontu. ndax dama respecté député yi toog. moo tax duma la tontu. honorable kon assemblée bi ñuy wax naan léegi moo raw réew mi mbedd. mais ah, na de sax amul saaga ndey la ci seen biir saaga ndey lañ ko njëkk def ci assemblée bi te xuloowu ma xeexu ma indi naa la nekk sama commune wax ko mu jóg wax ma lu ma war ta wax ma ne ko li nga wax loolu amul lii moo am hmm? man duma neexal kenn di wax lu dul dëgg ndax na naa leen yàlla bàyyiwu ma te damaa am teraanga ba retraité doog a ñëw assemblée national te lu ma amul woon aw ma ko ci assemblée bi uh-huh. du dëgg kon nag man yaakaar naa ne waruma mën Eh, def lu ma war def ci assemblée bi. mais buñ xoolee ba ci biir euh, luy problème bi pour yow ndax dañ lay xoolee bëtub xëy na euh, ku ñëw rek ci benn bokk yaakaar mais en tant que xëy na dañ lay xoolee ba bëtub opposante ndax kon xëy na. waaw loolu lañ may xoolee dangaa bëri histoire dangaa pànk danga mën a kaas man nag fa ma juddoo sax kenn mësumaa àtte xeex du Pikine du émigré bi ma def kenn mësumaa àtte xuloo kenn mësumaa àtte xeex. mais problème bi mooy yow la nga war a wax boo ñëwee wax ko ñu ne da nga soxor temps yi def naa fi benn euh, débat la ma doon wax ñaari député ngi topp sama ginnaaw ak soxor kii moo iñaan te man defe naa ne ñi jàppale président Macky Sall ci laa mhm. ndax man ba muy ñëw président kër euh, sëñ Mansour Sy Djamil ñu di ko recevoir. Mhm. ci élection yi ñu ne nañ ko jàppale ñu ne mu ne nañ ko jàppale. Mhm. bi sëñ Mansour toogee ñun ñëpp ñu toog waa Bés du Ñàkk dama leen ne. man mi ne ci base bi day xam naa ne président Macky Sall bii bu ngeen ko jàppee dina dem te booba élection présidentielle lañ doon wàcc bi ma ko waxee ci salle bi ma ne leen gis naa ne moo ne ci base bi. Mhm. ndax man damay wër te fu ma dem damay gis ay nitam. moo ne ci terrain bi nag sëñ Mansour ne ma nañ xaar deuxième tour ñu jàppale ko bu génnee. Mhm. kon man yàgg naa ko jàppale. yàgg ko jàppale avant. te te te bi ma jógee ci loolu it bi may ñëw di euh, euh, di di di ci élection présidentielle yi. Mhm. jëloon naa engagement maa nga Amérique feebar sama docteur na ma waroo dem. Mhm. mais comme jël naa engagement yor fi ay nit àndoon ak ñoom liggéey dama bàyyi lépp ñëw ànd ak ñoom ba élection yi jeex. Mhm. quatre jours après laa jëlaat sama vol demaat ci sama rendez-vous ndax man étranger laa nekkoon. Mhm. bi ma demee foofu deuxième tour campagne bi yëpp fa ko campagne jour am na dambaabu. li ah. may wax nii seede la parce que jour bi ñuy def marche. PDS dañu attaqué ci 116 maa nga woon ca marche ba. New York at ah, jàppale ko ci deuxième tour rajo yu bëri wax naa ci New mhm. York. campagnal ko ba ñëpp votal ko ñu bëri. ma campagnal ko fa lu rëy kon man jàppale naa ko te ñun dañu war euh, xam ne ñun ñi ko jàppale aussi dañu am responsabilité. voilà su ma gisee nag loo xam ne da koy gaañ. Mhm. du ko ci jay dama koy wax ne lii baaxul xëy na du ma mën jël audience pour dem ci moom mais danaa ko wax ci tele yi mu dégg ko. voilà surtout ak DTV, day leer mais bu fekk a ci mm-hmm. yow bo ñewé assemblée saga wax ju ñaaw nga and ba Vous ci ben bokk ndaxam tay jël nak responsabilité jutut da ngay wéy dess ci biir ben bokk yakar wala am lu xaar honorable député de ci taxawam de président Macky xam nga dina ndax su man dama bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu liggéey ba heure bii ba sunu mandat war a jeex mhm. de toute façon li ci des ci élection yi bëreetul mhm. élection législative presque mois de juin ñu def ko dans combien de mois sept mois su boobaa balaa boobu man dinaa de lan laay def mhm. waaw ndax dama ànd ak ay nit sa xel génn mi ngi ci xay na kon non mënu moo la wax ne damay génn xam nga dama jiite mouvement ànd si dëgg boo xam ne maa ngi ko créé en 2014 après élection locale yi bi ma dafa bëri ay branche ndax dama bëri ay membre yo xamné ñi ñu ngi envers ñi ñu ngi Amérique. ñi ñu ngi France ñi ñu ngi Italie. comme fofu yëm nak dañ fa am ay membre am fa ay cellule Sénégal aussi la même chose mënuma xëy rek de damay def li te waxtaanu ma ak base bi. te dara jar ta yakamti parce que yaakaar na ne yegg na ba nopi su boba nak ñun dinañu décider xol lan lañuy def inshallah voilà li ci kaw raw li gëtt suñu waxtaan di wé suñu gan honorable député ndey Awa Mbodj ndey Awa. ba tey ci jàngatam ni ñu jàngatee assemblée moom problème bu mag a mag a mag la. Mhm. mais loolu moo law ba ci réewum Sénégal est xam nga ni Sénégal fi mu toll nii fi am blocage bari na. dem na ba ci li ngay wax ñu ngi jub élection législative dans sept mois incha allah. Mhm. mais fi ñu problème mu figé taxaw na. entre mhm. opposition pouvoir.

nit ñi inscrire wuñu da ngay dem fenn def fa fanaan. wala nga dem def deux jours te doo mën inscrire te tant que inscrire wuñu élection yi góob ma ne dinañu mën a voter parce que boo actuellement ñu portons ñu carte électeur c'est une carte électeur réer Nous mhm. ñu bëri carte d'identité Nous avons mhm. ñoo xam ne dañu war Quand voter kon dafa jaadu ñu ubbi bureau de vote yi def ci lu bëri nit ñi am accès rapidement le plus rapidement possible. Mhm. mën a inscrire inscrire. su ko defee ñu mën a defaraat fichier bi nit ñi mën a voté mais tant que defuñu ko moom problème bu sérieux dina am. est ce que nekkul ni kon li opposition bi wax di ko tuumaal nguur gi dafa nekk dëgg ndax fekkente ni njiitum réew mi moo njëkk a jël dogal ni carte d'identité fi nekk nii même ku ci sa date mën a romb sax 31 décembre 2016 bii moom fa la ko yemale. Mhm. ba pare mu ni aussi carte d'identité biométrique bi CEDEAO bi dañ ci dugal carte électeur bi ci ngay voté. waaw loolu ndax nekkul ni dafa jël lépp takk teg ci barab. manam jël ay décision ci moyen bu ko mën réaliser sur le terrain taxawagul ndax nekkul ni kon mom amna na lu mu ci élection législative 2017 xam nga nag loolu mënuma ci tontu parce que mom mo xam la nek ci xolam. mais boo xam mënoo xam sa gént xam sa mm-hmm. gént morom. c'est vrai mm-hmm. mais man ci sama jàngat. mooy xam naa ne tey bu commencé won élargir centre de vote yi mu bëri. Mm-hmm. ba doy. rapidement nit ñi dañuy mën bindu. su ñu mënee suñu bindoon nag léegi ku ci nekk am sa carte électeur ak sa carte d'identité fenn kay laa d'accordul mooy mooy nga boole carte d'identité ak carte électeur ne nit ki inscrire fii dem inscrire fee pour confirmer ne da nga war a parce que yaakaar naa ne. lu tax d'accord ci loolu. lu tax d'accord ma ci mooy fichier bi. Mhm. bu fekkee ne da ngay inscrire ñëw am carte d'identité automatiquement dama ne nañu am carte électeur mhm. su ko defee am na ñoo xam ne peut-être seen expérience seen du yegg foofu. Mhm. mën nañu ñëw rek inscrire dem. mais suñu boolee carte d'identité yi ak carte électeur yi uh-huh. daf ko mu doon benn ba pare lu rafet la uh-huh. muy carte CEDEAO uh-huh. mais bu boobaa képp ku ñëw inscrire carte d'identité automatiquement lañ la inscrire ci fichier bi nga am carte électeur waaw loolu mooy facilité liggéey bi dafa mel li ngay ñaawlu mooy lu tax ñu koy séparé waa nga dem war a signé fële am foo bind koosek ni kat man damay bindu ci euh, fiche électorale bi dama ci def waaw xam nga lu tax peut man mën naa def mais am na ñoo xam ne xëy na seen mentalité du yegg foofu te itam mën nga toog tey mhm. ne duma ma nga dem ba dernière minute nga ne man kat am naa ku ma jaral voté mais su boobaa boo inscrireul woon nooy def dootoo mën a inscrire dootoo mën a voté mhm. ba pare bu fekkee ne dem nga ba fichier bi génn ñu ne sa tur nekku ci mhm. mën nga def recours waa léegi bu fekkee ne yow tukki nga ci 15 jours wala ci 10 jours nga war a dem def recours bu la fekkul Sénégal kon boo ñëwee bu dat ba jeexee mooy bokkatoo kon daal manquement yi bari na. ah man daal sama gis-gis xam naa ne foofu problème la. problème la te noonu laa ko waxee ci assemblée. parce que mhm. nee naa leen bu ma sañoon képp ku inscrire carte d'identité rek automatiquement da ngay am carte électeur waaye mhm. mhm. doo inscrire fii dem naan bëgg naa bindoo bëgguma bindu. détail yooyu. ci beneen mbir tamit ba tey ak mbirum carte électeur bi wala sax carte d'identité bi nga xam moo doon koo boole benn coow li ci nekkati mooy aussi lu ci nekk ci ay koppar. 50 milliards francs CFA honorable député est-ce que yow min xam ci que ak bëgg doxal deug jëm ci askan askan commission d'enquête parlementaire ngir mu leer ndax def de cela 2002 2004 defon ci 20 milliards mm-hmm. Sénégal lan mo fi yokku xana du rek biométrique lañ ci duggal rek tax nga ni def na ci 50 milliards ci honorable bëri na moom parce que bu fekkee ne 2012 lañ defoon élection. Hmm. def ci 20 milliards. Hmm. ñëwaat tey ne 50 milliards te muy hmm. même carte d'identité yi. wax dëgg yàlla bëri na. xel teyu ci. ah bëri na daal. sa xel mi ngi ci ndax def ab enquête ubbi enquête commission d' enquête parlementaire en tant que ah. député représentant du peuple. waaw kooku nag nañ déglu rek ba xam. comme député yaa ngi fi. lu ciy seen xalaat. yow amoo ci benn xalaat taxawal commission d' enquête bi initié. man de dama ne lépp lu ñuy def. te mu lëndëm ci xelu nit ñi dafa jar a def. commission d'enquête parlementaire <laughs> uh-huh. pour leeral ko ci kanamu nit ñi uh-huh. ah, lepp rek même du lolu rek mais ak leneen ak leneen ak lepp lu mu mën doon uh-huh. mu am tam ñu wat aussi ni président Macky Sall néna ku bindul ci 6 mois yi ci déjà sa problème am na ñu bari nga bëgg a bind dem di fanan ci ay centre ngir bind mu të mais néna bu 6 mois yi jallé dañ koy jaay kat dante pour nga am ko da nga joxe 10000 francs lolu and nga ci honorable man d'accorduma ci tax dama ne la amna ño xamne xam dañoo amul ku ne xam na ne dëkk bi am na ñoo xam ne amuñu seen sonn nañ mhm. loolu day tax nit ñi bañ a dem bindu ji te man wax naa leen ko ne naa leen dix mille yooyu nañ ko arrêté dafa fekk ne nag yow munoo téeméer d'accord yow kenn nga ne d'accord li ngay wax du dem fen mhm. mais nag di nga ko wax nit ñi dégg ko d'accorduma ci dix mille yooyu mhm. li tax d'accorduma ci mooy loolu am na ñoo xam ne boo leen nee ji leen dong du ñu am cawartey bind ji boo ca tegee dix mille nag am na xale yu góor yoo xam ne dañuy préféré dem jëndee ko benn t-shirt sol. Mhm. du leen jaral ñu bind ji parce que xale yu góor yi xale xool élection sax mhm. da leen di topp di leen wax pour ñu jóg vote ji. Mhm. kon koo xam ne amul sax léeg-léeg lu mu naanee café cent franc nga bëgg ko ne dix mille carte d'identité des fois du ko ko jaral. day préféré dem jëndee ko jiin bu mu sol. mais honorable lépp boo ko boole dafa mel nag dëgg-dëgg nag nguuru président Macky Sall problème yi bari na. problème yi bëri na problème yi bëri na mais nag dañuy jubbante rek ba mu baax. ah daanaka euh, ba mu tàmbalee léegi juróomi at daanaka problème ci kaw problème lu mu dugg jóg caaba ci la des. mais mais seen nguur gi doy na waar seen nguur gi honorable député doy na waar. ci nga ah, gi day ci laa bokk. kooku moom dëgg la te ñu nit ñoo ko fal. Ah. mais nag lépp dañuy defaraat rek. Hmm. man pour man. Hmm. dama ne lu nekk rek xëy na buñ ci waxtaanee dinañu seet solution seet nuñ koy saafaraa waaw ñu koy saafara ci beneen mbir gëm nga ni élection war naa mën a am ak situation bi ñu toll nii opposition bi nañu ne président dafa bëgg a dàq élection yi ndax xam situation bi Sénégal toll bu demee ci élection yi dana am nag opposition daal di koy bloqué di yeexal mbir mi gëm nga ni élection dana mën a am ak situation bi ñu toll nii bu li continuer ba 2017 ah, ma mën na am

yow mi jege nguur na ci ndax loolu dëgg gëm nga ni dëgg moo ko lal ndax waxtaan njëkkoon na fee am jurut dara yëgut fenn ndax yaakaar nga ni tey euh, waxtaan bii mu wax ni président Macky Sall ndax mën naa jur dara. waaw xam nga waxtaan mooy defar kenn ku nekk boo tool toogee sa côté doo xam la sa morom di def wala la sa morom nar uh-huh. mais nit ki boo jàkkaarloo mu wax nga tontu uh-huh. da nga xam kii lan la de kon waxtaan bi dafa am solo man d'accord naa dafa am solo. mais ndax gëm nga ni waxtaan bi li amee ndax njëkk nañu fee wax dialogue. Mhm. national sax def ko en direct ci mhm. mais ban ca wootee wax. fa lépp jaaree tàbbi géej. Mhm. Euh, mais loolu dafa mel ni ñi politique daal da ngeen di dugg ci li ñuy wax marché muusante naxante def genre lambigalo ku jog daanu. ah politique nak dafa bari fem mais askan wé ci perte ñu ci fekkaat seen politique ah, honorable. Hmm? doy na waar. doy na war doy na war ah uh-huh. <laughs> suñu waxtan di wéy ñu ci bañen wal xamna naa fi mu euh ku wax jangat réew mi jàngat hmm. assemblée jangat ay manquement yi bari ci nguuru président Macky Sall bi nga boko tay ni ci en tant que euh, député ci ben boko yakar hmm. da nga wax réew mi tam ci ay problème fan yii de li ñuy faat bari na lol lol lol honorable loolu yow miy jigéen jàngat boo am ci réew mi fi mu toll tey ci wàllum insécurité. dama lay wax tuuti ci li nga wax ba pare da nga ne réew mi dafa bëri manquement xam nga euh, mën naa ne du manquement Macky Sall premier mandat am la nekk. Mhm. te gis naa ne il est ambitieux. parce que su ma xoolee ñun ñu nekkoon à l'étranger xool li ñuy gis Sénégal. Mhm. ñu di ko réaliser. ci ay tali mu nekk lu rafet loo xam ne amu fi woon mhm. di xool train express régional ñun dañ ko daan dugg fële mu neex ñu trop ndax da ngay jóge fii dal fee minute nga yegg fa nga jëm kon mën naa ne yooyu yëpp ñuy defaraat la muy lu ma neex ndax man nee naa leen dama bëgg lépp di développé mhm. xam nga boo nekkee ci dëkku jàmbur mhm. la nga fa doon uti am sa dëkk yaakaar naa di nga toog mais loo gis rek dañ koy defaraat kon yaakaaruma ne manquement la mais xëy na ay jubbante ay defaraat moo fi am voilà nagul problème mu Sénégal ak insécurité bi waaw insécurité moom mën naa ne fan yi day fi am yu insécurité bi du loolu du du ci côté insécurité kon lan la am nañ insécurité mais dangay xool ki tëdd ci lalam mhm. mais policiers yi mu ñu nekk ba sa biir néeg la garde mhm. man pour man dama ne là la hein? waaw seytaane parce que tam ki taxaw di jam papa mhm. kooku policiers yi mënuñu dugg ba këram di ko surveiller man dama ne dañu wara def loi bo xam hmm. ci couteau yi ñuy jaay ñu sét nañ koy jaay arme arme blanche. Hmm. parce que nak ay jam ngay dégg ay pistolet. Hmm. mais war nañu defaraat ba nga xam ne képp kuy amati autorisation pour ne di nga porte di nga autorisation porte d'arme. dinañ xam nañ la koy joxee ak ñan lañ koy jox. Mm-hmm. parce que loolu même Amérique sax dem nañoon ba yegg foofu da nga daan dem Amérique côté bu nekk nga jënd fa pistolet. Mm-hmm. rëy gi bëri dee gi bëri mais loolu wàññeeku nu fa kon ñun dañu war a toogaat xool. parce que tam am na loo xam ne insécurité la ndax man ci banlieue bi laa dëkk. Mm-hmm. te gis naa ne agression yi bëri na. léegi laay naan ministre de l' énergie ñun dañu soxla ay éclairage yu doy. parce que lu ci bëri day am ci lëndëm gi. man damay taxaw sama buntu kër di gis ñuy agressé nit. Hmm? wallaahi du benn du ñaar. ca fa ma dëkk ndax eh, Icotaf googu taxaw naa fa nit di dóor nit jaasi hmm? ñu taxaw di seetaan kon insécurité am na mais am na loo xam ne aussi policiers yi mënuñu kenn ku nekk ñu topp sa ginnaaw hmm. nit ñi ñoo war a defaraat jikko yi ba pare itam xale yi la ñuy seetaan ci télé bi lu ci bëri dañ koy appliqué kon mën naa ne war nañoo xoolaat télé yi programme yi image yi ñuy def ak programme yi ñuy teg. Uh-huh. loolu base bi ci la parce que xale yi ñun bu njëkk ba suñu génération. Uh-huh. mais dañ daan gis pistolet daw dañ daan ragal pistolet. Uh-huh. mais léegi xale yi koo ciy jëndal arme sax dala naan jëndal ma pistolet dañuy dem ba miin ko ñeme ko. di seetaan ay film yoo xam ne ragalatuñu donc loolu yëpp base bi la. base bi nag la ñu war a seetaat. voilà am na benn élément bëgg naa ñu seetaan ko bu noppee bokk ko commentaire. ñu xool élément bi. ci waxtu wu ñu seetloo ne faat gi bëri na ci réew mi ay ndaw pencum réew mi ci mel ni maître El Hadj ñoom di xaarandi rek ñu delloosi lii di peine de mort maanaam ku faat rek ñu faat la ci miim réew ay doomi réew mi ñoom jàpp ne doxalin bi ni mel méngoowul ak jamono. nit ku nekk am nga droit dund nit ku nekk am nga droit réserver sa bakkan xamuñu fi Sénégal mënoo jël nit ne léegi peine de mort day am da nga jël sa fetal wala da nga koy pikiir en même temps wala da nga jël sa fetal dóor tiire ko pour mu moom daanaka yàqu nit ki la mu ngi mel ne nga rey nit parce que dootu am njëriñ amaluñ seetam njëriñ amul waa waajuram njëriñ. kooku moom bon dañ ko war a teg ko fële. ñi le ñu fekk leen ñu toog di waxtaan ci li soxal rek xew-xewu àdduna góor yi ñoom bokk benn kàddu ci poñ bi ni mel. peine de mort bu amul kenn du rey ni mais dañ ko jël teg ko fële léegi nag yow seen nit ki ñi ko ñu jël waa ji dem teju ko mu fay xaalis yu bari ñu génne ko su ko defee rek mu romb sa koñ doo ko ñemee ba dafa dara kooku nag. balaa caak boo reyee nit ñi rey la mu gën a gaaw. ay dawal oto bu bëkk nit mu dee xam nga ñaanoo ko loolu bokkul mais ngay yéene comme que yow dama lay rey nga rey kooku pour man de bu ñu rey ci gis-gisu góor gile saafara gi fi sës ngir rek ñu wàññi faat gi ci biir askan bi moo di rek ku faat ca saasa ñu fat la. pour moi nga def attention pour rey nga ñu jàpp la la télévision bi ñu rey la tout doo too dëkkati mukk kenn def ko. ñu xool penn bu demee ba 40 ans ba 50 ans man d'accord na waaye fii Sénégal la ñu jullit mu xool moo dootul jullitam di ko tiir ay bal wala mu koy pikiir. fii ci Sénégal nag faat gi mujj soxal rek peine de mort ci atum 1967 lañ ko mujjee amal boobaak léegi nag lañ ko gëj nemmeeku ci réew mi ñu gisee ko ni lu méngoowul ak ak ak yelleefu doomu aadama li di peine de mort ñu ko dakkal ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru décembre 2004 ci nguruk Abdoulaye wad wala honorable ñogi sando élément bi. Mhm. Ray Barina, bari na askan seen kàddu jib ñi neñu peine de mort na ñewat ñi ni déedéet honorable mom lu mu gis ci mbirum solution ndax peine de mort nga japp ni moy solution ci li xew Sénégal. man pour man defe naa peine de mort du solution bi mais kii daan yi ñu ko daan defe naa ne amul lu ko gën a metti ndax tëj le à vie ba damay jëkk jaale sama sœur bi nga xam ne moom la ñu faat soxna faatu Fatou Matar Ndiaye Fatou Matar Ndiaye bu baax miinuma ko mais jotee nañ dañoo dañu daje ñaari yoon ci ay euh, affaire hmm. ay programme benn bi dëj la woon bi ci des xam am na lu xewoon ñu daje mu nekk nit ku sedd kon maa ngi koy jaale waa Sénégal yëpp muy lu metti loo xam ne ñëpp ko vivre dessin bi dafa mel ni ñëpp la dal seen kaw waaw ndax kenn ku nekk mënoon na dal ci yow daal euh, man dama ne peine de mort Sénégal tey bu ñu commencé woon peine de mort bay rey hmm. yaakaar naa la ñuy rey dana bëri de te hmm. dinañ dem ba ñu ñoom ñooy waxaan nañu dindiwaat peine de mort bi kon pour yow du solution. man pour man perte de mot du solution. ma dem sa ben collègue député Seydina Fall ñu kay wax Bougazelli. Mhm. depuis 2013 je pense né woon loi bi mi ngi ci taabalu président président Moustapha Niass. ngir loi bi dugg pencum ndaw réew ñu appliquer peine de mort kon ànduloo ci boobu xalaat wat peine de mort ci biir Sénégal. Anduma ci parce que defe naa ne kii ni mu reyee maire bi nii. Mhm. moom ñu ngi ko tëj à vie. ba pare euh, euh, di ko liggéeyloo par force. yaakaar naa loolu doy na doy na la xar mu leer na ne yow dootoo génn uh-huh. dootoo gis say mbokk uh-huh. kon moom yaakaar naa lépp lu taxoon mu def ko réccu na ko defe naa ne nit ki bu reyee mën nga ko tëj à vie uh-huh. kooku defe naa ku ko gis dootoo rey defe naa wala booy rey di nga ko xalaat pourtant dafa am ñu xalaat nii daal prison yi bu buñ la condamné la plupart da ngay génnaat ni ko reportage bi waxee sàng euh, da ngay rey nit bari na fi ah kun naan rey na ñetti nit ki naan rey naa ñaari nit nga gis sax ku ndoom naan kay yàgg naa xëy nit tey mi ngi ci mbedd mi ndax nekkut ni tamit ñiy wax pen de mort am na fu ñu ko teg ngir xupp ñiy rey xalaat ni ko rey ñu rey la du solution nga yaakaar ne. ah mën na am ba dañuy xupp mais daal man d' accord ma ci peine de mort. d' accord de mort te bëgguma ñu appliquer ko Sénégal te wax naa ko keroog. Mhm. en plénière lu ministre de la justice ñëwee. solution bi daal mooy. Mhm. Euh, képp ku ku ñu gis ne rey nga nañ la tëj à mhm. comme ni ñu tëjee yaakaar naa loolu ku am mm-hmm. jom. Mm-hmm. ku gis lii mu demee nii mu leer na ne yow sa àddina yàqu na mais dootoo rey dina wàññi lu bëri. am na it ñu gis ni li xew ci Sénégal mu ñax kaaraange gi lu ci ëpp jafe-jafe askan wi la. loolu am na. ci yéen da ngeen ci am euh, responsabilité ci loolu. Mm-hmm. gëm nga ni kon loolu mooy dëgg jafe-jafe ci wàllum koom-koom pauvreté bi mooy source de violence bi am ci biir Sénégal léegi. xam nga man foofu laa njëkkee ak yow. parce que kii dem na naa dem ci gaal bu ma yeggee baax na bu ma yeggul dee. Uh-huh. kooku toll na foo xam ne sonn na. Uh-huh. moo tax ma ne depuis le début. Uh-huh. foog comme nii ñuy def nii di former jeunes yi di leen jàppale ñu liggéey. dafa am solo dina wàññi pauvreté bi. parce que am na ñoo xam ne fi mu ne dañuy dem ba je m'en fous la ñuy doxee parce que dañuy sonn. sonn boo xam ne fa mu yegg dootuñu bëgg dara ndax yow nga xëy gis sa yaay toggul añ. di xiif. amoo loo ko jàppalee munoo am liggéey munoo def dara man yaakaar naa ne nga naa dugg ci géej gi dem su ma yeggee baax na bu ma yeggul dee kooku mën naa rey nit kon politique boobu laa ne nañu yokkaat. social social. Mhm. jàppale jeunes yi ñu liggéey ndax yaakaar naa bu ñu demee ba liggéey ñoom ñëpp. Mhm. agression bi dina wàññeeku. ndax li ñuy agressé nit ñi di jël seen pochette yeeg. Mhm. di jël seen xaalis yeeg seen portable yi yëpp dañ koy jaay pour am lu ñu def ci seen bopp. ma ne lu leen gënal la mais foog ñu éduquer waat daal xale yi. yar yar leen. film yi may wax itam ñu wàññi film yenn yi ndax jëkk jullit lañu nekk nag. am na élément beneen bu ma la bëgg woon honorable ñu bokk ko seetaan su noppee du ko ñëwaat commenter élément boobu. ku ñu ko wax doo ko mën a gëm ndax ñaawteef ndax mettit ci ko xam ci ñi ko xamone xamone nañ ni ko yalla bindee woon nekkoon ju bax digeen ju àndoon ak dal jigéen ju amone dignité am engagement waaye dañuy que xeyna li dogal bi am na loo xam ne ci nguur gi la yellool muy assurer sécurité citoyen yi assurer ko bëccëg comme assurer ko guddi man daa leen jox firnde ne bi ñu toogee ba léegi ñu ngi yokk kaaraange gi li ci biir kër yi nag bu fitna di am ak ay mettit war nañu xoolaatam ci biir kër yi ak ci biir néeg yi lan moo waral jikko ju bees ji nga xam ne léeg-léeg alal la ñuy wax dana teg nit lu warul def daf lu jéggi dayoo war nañ xoolaat suñu bopp waaye dañuy delloo ci xel yi euh, fas yéene naa itam ëllëg conseil des ministres wala ginnaaw ëllëg dinañu xoolaat politique judiciaire ci wàllu gën a aar askan wi ak gën a dëgëral daan yi nga xam ne képp ku boomati doomu adama daañu la teg giir dund loo xam ne ba ngay dee dootu génn ci kaso bi su benn fànn boo xam ne ak benn yoon doo ko mën a am. honorable ñoo gisandoo njiitum réew mi président Macky Sall. daanaka mën naa wax ni sax xaw naa tuur rongoñ ndax wane ni xolam dafa jeex jàngat boo ci am. waaw président Macky Sall. kii gaañu dafa am nu mu meloon ci moom nekkoon jigéenam nekkoon xaritam yàgg ànd ak moom comme ni mu choqué ñeneen ñi nga xam ne xamuñu ko sax te ñu dund dund ak moom mettit googu kon yaakaar naa moom tam mën na am loolu moo ko dal te moo koy dal parce que tam dafa metti même bu ko xamul woon sax muy sénégalais rek day metti wax ma mu doon jigéenam. yàgg ànd ak moom ci politique. bokk ci APR ci APR ba nekk responsable de femmes. Mhm. waaw kooku kon foog mu ne foog mu metti ko. mu am jàngat beneen bu ma ci am. Mhm. ñaata sénégalais lañu ñu rey ci Sénégal bi président Macky Sall nekk au pouvoir ci anam gu doy waar. mosu mhm. ñoo gis président Macky Sall déplacé wu lu tax mu xaar tey ba ku bokk APR loolu dal ko mu soog a nii. mais président Macky Sall moom ñi mu xam ñëpp. ñuy am ay décès dafay déplacé wu dem jaale leen de gis naa loolu ci tele bi lu dul benn du ñaar. ci cas yu mel nii. ak yeneen cas. ci cas yu mel nii. ay agression métti am na fi ko bu ko féetale ci cas bi féetale ko ci ne. mosuñoo gis ko daan bëgg faa moo yàgg xaritam la. Uh-huh. parce que man gis naa ko ci dëj yu bëri yu mu déplacé wu jaale ji ma daje fa ak moom man dëj bi maa ngi fa woon. Uh-huh. kon man jàppeewu ko ne ci cas yu mel nii la mais dama ko jàppee ne kii ci président la bokk. ndax jigéenam la ñu sori lool moom bi kii dëkk bi jëkkëram nelawee nee nañ président Macky Sall dem na jaale ji ko kon kii bu nelawee ak cas bu mu mënti du doon rek moom war na koo jaale ji te dama koy gis mu di ko def lu bëri kon buñ ko féetale rek ci ne kii moo dese dem mu jóg dem jaale ji ko fay parce que bu ñu gisee nii li fi am ay agression ay assassinat yu ñaaw bari na fi mhm. waaye lii xew nii président Macky Sall réagir si moom dafa bett ñu bëri bëri ñu ne ah kenn bëggul de ku jege njiitum réew xëy na ko dal waaye ñoo ñu bari dañuy wax ne occasion la sax kon mu am solution ndax bi daan laal ay jàmbur de dëw réagir nii vraiment nag honorable man daan nañu laal ay jàmbur te daanuma réagir nii mais dama daan xam ne lu metti la kon moom la mu ko jege li ma sentir keneen sentir ko moom la sentir xam nga problème bi mooy nit ñi dañu mën a critiquer des fois mais man pour man du lu grave man damay ko damay jàppee ne rek jigéenam la lii dal na ci kawam war na ko jaale ji jaale ji na ko waaw man daal sama gis-gis foofu la toll. foofu mais ca gis-gis bi nga ci am it am na lu mu fa wax. moom mhm. président Macky Sall jël ci ay dogal. Mhm. Euh, dogal yooyu nga jàpp ni Sénégal moom yàgg na am ay loi tout le temps assemblée bi nga wote ay loi am na loi organique bu fi am am na code pénal constitution yëpp ngi fi mais lu nekk Sénégal problème mu application ndax. politique bu dem ba ëpp doole suñu justice mbaadu moo dem ba lépp xew ndax ku ne xam na ni moom kuy rey nit moom même bu dul peine bi ñuy wax yàgg naa am ay loi yu dëgër yu ko sanctionné dafa mel ni application mooy problème mu Sénégal ci loi yi. waaw am na fi nag loi yu bëri yoo xam ne appliqué wuñ ko loolu moom am na. Hmm. mais cas bii man yaakaar naa ne ni ko nit ñi jàngatee ak man ni ma ko jàngatee du benn. loo ko jàngatee. xam nga dama la wax ne hmm. moom xëy na am na fu mu toll woon ba wax lii mu wax xalaatam la wax en tant que sénégalais bu ko gisee ne rek en tant que président moo tax mu wax li mu wax xalaatam la wax kon kenn ku nekk ak sa réaction mm-hmm. mais si loi yi lay wax application yi en tant que député waruñoo veiller nag di appliquer suñuy loi bañ ko politiser waaw dañu war a appliquer loi yi mm-hmm. xam nga ma dama ne loi buñ ko xosee ba voté rek mm-hmm. dañ ko war a appliquer loolu moom mooy yoon parce que bu dul woon loolu kon jarul ñu ciy dépense di ko def. Mhm. parce que def lu waa dafa bëri. ndax ñu fi faat ay bakkan bari na. Mhm. ñu bari ci ñoom ñu ci mbedd bi taxawal. waaw loolu am na moo tax ma ne nañu appliquer loi yi defe naa la nii mu demee nii. Mhm. bu ñu fi jógee. képp ku faatati defe naa ne dootul demee na mu doon demee. parce que yaakaar naa ne benn bu ñu la génnee ngay dox nit ñi duñ la ci bàyyi. kon yaakaar naa changement dina am. <laughs> voilà ci beneen mbir comme que ñu ngi ci wàllum yoon ñu dugg ci mbirum Barthélemy Diaz sa collègue la député tey gis nga ko commission ad taxawal nan ko daal dina ñuy dindi mbaanum kiir laayam immunité parlementaire bi daanaka benn fan décembre bi sax léegi fan la war a dem taxaw ci kanamu kaay bi yow jàngat boo am ci mbirum baxta euh, daanaka cinq ans ginnaaw la woon yoon tegoon kon loxo ña fi nekkoon boobu ci régime président Wade la woon ngeen falu président Macky Sall ci bopp réew mi ñu génne Barth may ko liberté provisoire ay at bi mu weesoo tey dafa mel ni daal dëgg dëgg ci gàttal daal honorable mbir mi mbaa du politique moo ci laxasu diggante Barth ak justice bu Sénégal tey. man de euh, problème bu Barth bi metti na ma parce que kenn ku nekk mën na dal sa kaw mais comme moom bi muy nekk député problème bi am na ñu bàyyi ko mu nekk député ba mandaam presque cinq ans léegi mu mët hmm. mu war a jeex. man mu defe naa ne mënoon nañ ko bàyyi ba mandaam jeex ñu doog ko jugé comme boobu ba léegi mu ngi nekk député te kenn jugé wu ko. man sama gis-gis mooy mënoon nañu bàyyi ba mandaam jeex ñu doog ko jugé. kon da nga gis ni kon buñ ko bàyyi bu mandaam jeex rek politique moo ko lal. politique gaa mu ngi ci moom. parce que boo hmm. seetaanee télé bi nag xool lañ doon wax démb ak li ñu waxaat nii da ngay xam ne politique a ngi ci. mais loolu ndax nekkul nag danger bu mag pour Sénégal honorable député bu demee ba sunu justice bi kenn gi war a taw réew mi. ñu koy nasaxal ndax politique. ah politique bi de bëri na fi moom. danger la pour Sénégal waaye moom problème am moom man ci sama gis-gis mënoon nañ ko bàyyi rek ba mandaam jeex ñu doog ko jugé parce que bi muy nekk député mu ngi woon ci problème yi amoon na. Mhm. waaw mais booba mi ngi ànd ak président Macky Sall. ci benn bokk yaakaaram. Mhm. bokk même vision ak moom. Mhm. tey nag gis nañ ci biir PS am na ay camp mu ngi ci mu ngi ci camp ba leen na ci opposition bi. mais honorable ndax nag yéen wër leen nag yéen député yi yéen fi nekk am yi doon mën a mm-hmm. waxal malgré que sax li askan yi xaar ci yéen dëgg la ñuy doon ko def mais ndax wër leen a taxaw nag ci loolu nag suñu justice bi bu demee ba ban koy affaiblir politicien bi ëpp ko doole di ko manipuler li naan séparation des pouvoirs daanaka ngelaw na rek waxi neen la honorable député ah justice bi de temps yi dégg nga problème yi ci am yëpp yënguwaat du ñoo ko gisatoo mm-hmm. waaw kon daal mu ngi noonu mu ngi noonu waaw honorable daal mi ngi noonu la ci xalaat fi mu toll nii ah lu ma ciy wax leneen metti na metti na mënuñ ci dara loo mënul dara da toog di xoole ak wax mais yéen parce que man bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy lever immunité parlementaire bu Barthélémy Dias dama abstenir voté wu ma parce que man nee naa leen assemblée nationale bii mm-hmm. lu ma fi gëmul du ma ko voté te dara mënumaa fëkk nag mm-hmm. Mm-hmm. ndax toujours rek damay xool ne lii bu ma ko defee bu ma tëddee dinaa nelaw du ma fi ko ne nag loo xam ne bu ma tëddee dama naan waa Mbodj lu tax ma voté lii. Mm-hmm. pour demandoon non non du def loolu. sa xel ngeen keroog bi ñuy voté dama abstenir voté wu ma ko. parce que man pour man comme li ma la wax rek. mënoon mm-hmm. nañ ko bàyyi ba mandaam jeex ñu doog koo levé. mais honorable kañ na ni am ay politiciens yu dëggu nag ci sunum réew. ah am na ñu dëggu yow am dëggu nga yow xay na. am na ñu mën sax dëggu ma waaye ñu dëggu bëri nañ bu benn dëggoo fukk ca ginnaaw euh, loolu. du dem parce que askan wi moom fi ñu wedd nañu politique moom. askan wu bari ñoom wedd nañu politique gëmatul leen ko ci wax ñu politiciens yi. man mii am na politiciens yoo xam ne gëwuma leen. Mhm. man mii di politicien. voilà parce que léeg nga wax ak nit mu wax la loo xam ne wóor na ko ne moom la muy wax du dëgg te yow wóor na la la mu lay wax du dëgg. ci ñun ñii ci suñu biir. looloo fi am. mënoo ci dara boo waxee ñu ne c'est politique c'est dañu war a changer mentalité boobu. Mhm. politique politicienne bi ñuy wax. pour naxaate dañ ko war a changer. Uh-huh. parce que nag foog ñu xam ne dañu wax rupture te développement day am kon foog ñu changer lu bëri li fi nekkoon. Uh-huh. tant que changer wuñ ko rupture du am. ndax nekku ni loolu li tax politiciens yëpp Sénégal dem bay doxee noonu naam yàgg na fi. ndax nekku sa président sa njit bi moko ko njëkkee président Macky Sall ndax mom moy fi waxoon li nga wax sàng rupture bonne gouvernance 5 euh, ans lay def ci bop rew mi mais finalement wax ja dal wax yi ngelaw la mujjee doon ngir rafetal wax ji mbaa du moom mo jité mbir yi président Macky Sall yang ngi koy sànni xeer ah, dañuy laaj rek nga tontu <laughs> non non xam nga man mhm. problème 5 ans yoy ñuy wax man wi la voté ci cinq ans yi cinq ans wi la voté parce que man lu ci nek rek damay def sama jangat xol la dal sama xel ma def ko parce que moom moo ne woon dafay appliquer mandaam fu mu yem comme liñ ko votel xëy na dem na ba ca biir am na lu ko tënk mais man fa ma gisee mooy pour man sama xalaat cinq ans yi moo ëpp jàmm ci Sénégal euh, euh, kii 2019 dem élection 2019 sept ans yi moo ëpp jàmm ci Sénégal hmm. te itam référendum bi ak point yi am na ci nee naa leen yu ma d'accord mhm. am na ci yu ma d'accordul mais voté naa wii campagne naa it oui au niveau international mhm. képp ku ma xam ne naa la votel oui parce que pour man moo ëpp jàmm Sénégal ndax dama ne bu ñu voté woon non dinañ ko fekk ci pale bee na ko génnal <laughs> loolu boo tax ngeen voté wii mais daal ah. ci gàttal mooy wax ji ak euh, wiiri wiiri gi ngir bind li mu waxoon daf bari ca loolu dafa dem ba askanu Sénégal sax léegi Euh, buñ ne élection dafa am gis nga taux de participation ni muy faible askan dañoo dem ba gëmatuñ leen yéen ñi politique ndax seen ay jëfiin euh, loolu lépp moo nekkoon li nga wax aaja na xoolaat nag. def pourquoi pas ni wax formaté. mais ñun ñii sax da ngay dem ñu ne gëmatuñ leen dañ wax. voilà mais ñun gëmatuñu politicien. Mm-hmm. parce que naxaate bi dafa bëri. bëri vraiment am na ñoo xam ne dootuñu doole leen doo da ngay wax bu sonn du ñu bëgg a jóg. Mm-hmm. parce que dañ naan naxaate bi dafa bëri. Mm-hmm. mais li ma la wax rek. gis nga nit ku nekk danga war a seet li ngay def ndax man nee naa leen mënoo dund cinquante ans xëy rek dugg ci politique wala yàq sa bopp ba ëllëg boo rombee ñu ne kii kat lu mu wax ay wax du dëgg man loolu dama koy sàmm man saa yoo ma waxee lu ma mën dama la naan baax na soo ma waxee lu ma mënul du la dig dama naan mënuma parce que ñun ay député lañ mënuñu lépp. te li ñu nit ñi di teg. Uh-huh. antanuñ ko. Uh-huh. te demande yi bëri na. Uh-huh. ndax nit ñi ngay àndal ak ña lay yaakaar. dañuy bëri lañ lay teg muy seen soxla àttanoo ko. kon am na nooy doxalee rek. da dem ba nit ñi dootuñ la gëm. wala da ngay dem ba sonn. te loolu day am. dafa mel ni honorable suñu déggee wax ji ak fi Afrique toll tey li président ma doon wax ni Afrique amul problème. mais ay leader la am problème maanaam problème leader la am bu demee ba tey ñi ŋànk suñu réew yi Afrique yi Sénégal ma nga ca biir moo tax may wax euh, doxalin wi loolu ndax kon lii moo tax ba Afrique rawatina Sénégal pour ñu décoller développer nekk problème ci ñoom ndax seen ay doxin. ah dëgg la de moom. neexul waaye dëgg la. neexul waaye dëgg la. voilà ñu tëj page boobu dem ci beneen wàll en tant que femme bu nekkoon ci diaspora bi maanaam nekkoon bitim réew ñu bisim tey gis nga ne président de ko ña nga ca woon di ko doxal euh, loolu li ku nekkoon bitim réew rafetlu naa ko waaye dina metti te man damay def tournée di dem ci bi mhm. mais dangay dem fii ñu ne la ah mbaa yéen a ngi xool ni ngeen ñuy jox séddale suñu dëkk moo ëpp émigré nga dem fee kee naan la ah bu leen jox ñi bàyyi ñii kon déjà partage bi rek problème la mbaaru e, mbaaru Italie da jàpp ni moo war a ëppale Espagne waa Espagne jàpp ñu war a ëppale Portugal kon ku ne mm-hmm. xalaat États-Unis taxam di xaar waa partage bi daal jaaxal mooy problème partage bi nun koy réseau bi réseau parlementaire des Samuel de l'extérieur dem nañ ci président Niass waxtaan moom bi ñuy doog a wax. boobu sax voté gu ñu référendum bi. mu ne xa na ñëpp xalaat nuñ koy defee idée bu baax la. mais ba tey ma xamal la ne assemblée nationale sax dafa bëri waa diaspora yu fi ne. ndax man 90 laa voyagé. nekk ci à l' étranger presque 2002 laa gën a ñibbisi. mais terewul ba léegi maa ngi dem ndax samay doom yaa ngi foofu. ay député koy taa ay Fall Fall ñoom ñëpp ñu ngi à l'étranger. fa lañ leen président Macky Sall. kon déjà am naka jot kon avant loi bi ñëw déggee seen intervention ci affaire diaspora bi dañ ciy wax. te ñun tam lépp li nga xam ne xam nañ ko ci diaspora dund ko. dañ koy indi assemblée nationale. président nag respecté na diaspora bi respecté na Sénégal de l'extérieur yi. respecté la wala politique moo ko lal. te loo xam nga mën na politique te am na foo xam ne du fa yegg. bu ko neexee mën na politique rek comme politique yi fi daan am te du yegg fenn fii mais su toogee ba dig leen loolu bëgg ñoom tam ñu gën a am xëy na baat moo tax ñu mu def ko daal. <laughs> te man gis naa ni muy doxalee ñoom. ni muy doxalee. waaw ñu gis ni temps yi sax bari na doxalin bi ñu bari ñu ngi koy ŋàññi ndax président Macky Sall dafa waxoon day def diaspora bi euh, quinzième euh, région. Mm-hmm. ñëpp di ko xaar mu toog falu deful dara deful dara ba yàgg mu teg leen dig leen ay député gis nga nekk na coow ko war a séddale leen. Mm-hmm. ndax nekk ñu daal diaspora sénégalaise moom digg yi moo gën a bari mais da leen di fàtte au fond donte lu mat deux ba trois millions Sénégal ñu ngi nekk bitim réew. waaw diaspora bi de moom macha allah li fa nekk bëri na. Mhm. te li ñuy participer aussi ci économie Sénégal bëri na. ñu ngi wax ndax bu ñu nee un milliard sans lu ñu compter wul. voilà li nga xam ne ci poche yi lay dugg. Mhm. kon bëri na ñu ngi participer bu baax ci économie bi. Mhm. di participer ci social. problème bi nag mooy ñu bëri du ñu investir. ñoom Sénégal di séddee. waaw parce que dañoo ragal am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw bëgg investir duñ leen ko faciliter. wala ñu ñëw investir ñu teg leen lu diis loo xam ne dañuy daw. kon politique boobu aussi dama leen ne nañ ko wàññi nañ ko oyofal. ndax am na fi ay ku xam xool diaspora léegi xam ne metti na. metti na amatul dara. la fa nekkoon nekkatu fa nekkatu fa. ñun bi ñuy tukki dangay tukki ñëw boo etee ba pare indi sa ay millions ñëw jënd sa kër jënd sa oto. mais léegi ña fa nekk. dañuy am fii ay bien gis naa koo xam ne sama benn collègue député nee na ma benn frère dafa jaay këram pour dellu. donc bu ñu toogee ñoom ba la ñu investiroon Sénégal mu metti foofu ba ñuy dellu di jaay seen bien yi fii kon diaspora metti na dafa jot nag ñu taxawu leen ndax mhm. li ñuy participer bëri na mhm. toujours dama koy wax ak